ku wérul du liggéey ba am lu jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla nit ki boo ko ba mu wér di jaamu def di wa rahmatullah suivre sama xalaat ñu leen di nuyu di leen ziar baax di leen fàttali yéen ngi programme plante de la semaine comme ni ngeen ko xamee nag plante de la semaine ñu ci daal professeur Ousmane muy borom Boga Bio Massar tradi di sukkandiku ci ay gàncax yu sax ci réew mi pour di faj ay feebar yu am ci réew mi voilà. Hmm. Euh, professeur ginnaaw bañ la nuyoo la tey garab gi nga xam ne bëggoon nañ euh, nga wax ñu ay njariñam moom mooy euh, ngóolu maar hmm. moom lan mooy ay njariñam ci wàllum wér-gu-yaram fii ci Sénégal. auzu billahi mina shaytaani bismillahi rahmaani ngi lay la ziar di nuyu sunu mbokk internet yëpp. Mm-hmm. comme ni ko waxee rek ci vidéo mm-hmm. ci numéro bi surtout dimanche bi. Mm-hmm. bëri dañuy profité di woote. mais dimanche bi la ñuy def vidéo yi ñu am jot comme ni heure bii nii. heure bi bu ñu koy def dañ koy def mode avion boo wootee doo jot. ñu bëri foog ñu leeral leen ne dimanche bi moom. du mënoon a tuuti rek ba guddi gi sax mu xaw a tane mais moom ñu ci vidéo yeeg yooyu. loolu aussi ñu ngi koy leeral daal. waaw bu ko defee Pape Ngolo Mar garab la boo xam ne dafa bëri njariñ. yu mën a faj. xaay bi rek moo koy yàq mais après dinañ ñëw ci ni ñu koy utiliser. moom baax na ci lu mel ni ay blessure mm. wala ay dagg dagg wala ay góom ak yooyu mm. boo amee sunguf bi di ko ci taf euh, yàlla mun na ko saafara mm-hmm. su dee koo xam dafa amee tànk yu néew yi mm-hmm. muy ay ëdëm e, tànk yi di néew yi di sadd noonu muy mm-hmm. néew yi néew yu mag yooyu moom bu amee ngolo maar euh, di ko naan aussi ren bi yàlla mën na ko ci saafara su fekkente ci wàllu góom la aussi la même chose soo amee sunguf bi di ko ci tey mën na gaaw a accélérer bi bi wéraay bi lu mel ni constipation seere nit ki buy seere aussi bi jël ngolomaan mën na bàyyi mën na dañ daal nga xamante ni dañu amee règle douloureuse ñu gis règle muy metti mbokk jigéen yi baax na si ñoom nga xam ne dañoo am lu ñuy wax stérilité maanaam tëlee ci wàllu am doom nekk jigéen ñu taxaw wala góor yu taxaw mm-hmm. ngolo maar boobu mën a leen a saafara mm-hmm. ñi amee problème mu rein mm-hmm. eh, aussi mën nañ koy di jël mais nag quantité bu yem rek bu ndaw rek toujours ñi nga xam ni dañu amee lu mel ni sibiru paludisme surtout paludisme chronique sibiru bu yàgg ci yaram bi wala boo xam ne daf lay daaneel eh, chaque année eh, boo koy def yàlla mën na la ci saafara bu baax a baax ñi nga xam dañu amee des douleurs abdominales mmh. biir bi metti de maux de ventre euh, suñuy naan euh, Golomar mmh. yàlla mën na leen a saafara mmh. ñuy wax problème problèmes de ga gastro-intestinal euh, problème mu biir ak problème mu intestin problème mu mbaq mbaq ak yooyu daal brusteg yooyu suñ koy jël yàlla mën na leen ci defal saafara bu baax ñi nga xamante ni tamit dañu am jafe-jafe ci wàllu tuur ndox ci wàllu saw muy góor muy jigéen Euh, mën nañ ko di jël aussi baax na si ñoom mm-hmm. les li ñuy wax les maladies vénériennes maladies ci wàllu mm-hmm. veine yi maanaam mm-hmm. euh, dañuy am problème mu veine wala nerf ak yu demee noonu. loolu la baax na si ñoom. ñi nga xam ne dañuy am problème des maux de gorge. Euh, baat boo xamante ni day metti wala yu demee noonu. bëri waaw. ak ay waxaw yooyu. loolu bi baax na si ñoom. ñi nga xam dañuy faral di am ay maux de tête aussi boobu yu métti ak yu demee noonu mhm. mën nañuy utiliser ngolomar mhm. ñi nga xamante ni dañuy amee ginnaaw buy métti de maux de dos mhm. euh, mën nañoo amee ngolomar bi ko utiliser lu ñuy wax des affections pulmonaires ñi nga xam dañu am problème mu ay dënn euh, mën nañu amee ngolomar di ko utiliser euh, ñi xam dañu amee fièvre Mmh. yaram buy tàng moo xam euh, de temps en temps la mmh. moo xam dañ ko dëkkee mmh. bu ñu am ngoola di ko naan yàlla mën a leen a saafara ñi xam dañu amee dañu genre pays ñoom it mën nañu jël ngoola maar di ko naan fièvre ñi nga xamante dañu amee lañuy wax colonne vertébrale ginnaaw guy métti wala yaxu ginnaaw gi ligi ginnaaw gi di métti mën nañuy wut ngoola maar di ko naan Mmh. donc yooyu daal sam sunu xam-xam moom ci yooyu la naaj ci wàllu ngolomaan mmh. yoo xam ne nit bu koy utiliser mmh. yàlla mën na ko ci defal jàmm kon ngolomaan moom est-ce que mënuñu garabu docteur <laughs> garab bu docteur docteur waaw ngolomaan da ñu koy garabu docteur waaw non c'est xam nga particularité garabu olof euh, pap mooy lan benn garabu olof yàgg naa ko wax li muy faj kenn xamul lan la te toujours dama ci joxe exemple la preuve en est que tey lii ma wax nii yëpp. Mhm. am na koo xam ne mi ngi jël ngolamaat di ci faj te faju ci lii. Mhm. leen la ci faj. waaw bien sûr. donc daal am na koo xam ni. da mhm. muy fajee ngolamaat du lii ma fi wax yëpp. am na koo xam ne keneen keneen noonu leneen lay faje keneen loolu lay faje donc moo tax garabu olof am particularité. donc gis nga recherche boobu boobu mu te côté organique bi nga wax. waaw côté organique. waaw côté mystique ba ñëw mystique yi ñëwagul. garab bu mystique la. <laughs> macha allah waaw Golomar garab <laughs> xam ne baax na ci ay liggéey ak yooyu. Hmm. côté boobu mystique la duñ ci ñëw mais. pour wàll na ni waaw mais man man baaxul rek. boobu ci baax nañ koy jëfandikoo. <laughs> après ñu soog a ñëw ci dosage yi. ah dëkk de professeur. dafa bëri ay njabar lu baax ci wàllum liggéey moom nit ñi preneur la ñuy def. Mm-hmm. voilà non xam nga euh, Golomar mag ñi daal nañ ko def euh, mm-hmm. càngaay mm-hmm. di ko sangoo di ko boole ak tabatu yedda di lum mu fekk ci nit ki man na koy mën na koy mën na koy dindi maanaam boobee juróom-ñaari reenu ngol maar waaw boole ko juróom-ñaari tabatu yedda di ko sangoo mo lu bu fekk ci yaram man na man na koy dindi ci walu ay liggey njabar ak liggéey njabar ak yu demee noonu lu baax na bari ci réew dafa bari waaw boobu ngi sangoo baax ci baax na ci trop ay catak yu bari da koy dindi ci doomu aadama donc gis nga. alors que pour a wax nag. waaw baax na ci. léegi bu ko defee nag ñu xam ne aussi plante la boo xam plante toxique la aussi dafa wex wex na amer na sax wex na. donc bu bari duñ ko mën a utiliser. neexul daal neexul waaw xat la def moom. waaw donc bu ko defee ku utiliser. am na xam na lool sax du lu ñuy wax parce que secret jàmbur la. am na maam boo xam ne daan na ci faj nga xam ne moom ngóol maar rek lay faje mais dafa ànd ak ay ak njaq yu mu lay jox juróom-ñaari njaq léegi sax xale yi ñoo koy dafa gi demee noonu mais pour mais comme que secret famille la boo ko mën a dévoiler pour wan la pour wan ni eh, njariñ bi mu am xam nga am na lu am na lu ma bàyyi pour wan la bi mu am garab gi fu nekk nit ñi dañ ko daan ñëw di ko jël si donc kon gis nga ngóol maar dafa bëri njariñ boo koy naan pap dosage bi nit bu koy jël. Euh, mën na jël ñetti ren mu xooj ko ci litre ndox. ñetti ñetti yu maanaam ba maanaam ñu bëri dañ ko natt sax ci baaraamu digg bi nii waaw sa baaraamu digg rek non waaw mooy baaraam bi eh, waaw baaraam waaw mooy baaraam bi ci digg bi boobu <laughs> gis nga am na xam dañ koy nattee noonu noonu noonu toll noonu rek nga jël ci ñaar ba ñett def ko ci litre ndox xooj ko di ko di naan. am na ñu jël nag takk ay ñeent ba juróom mais loolu day weex moo ëpp dose yooyu day dose yooyu la ñuy wax ni soo koy naan lu bari mën na la indil jafe-jafe moom tuuti nga ci jël bu fekkee tamit da nga koo def defoo ko loolu da def poudre sunguf da nga jël benn kudd bu ndaw rek def ko ci liitaru ndox moom it yëngal ko bàyyi ko noonu di ko naan donc moom it loolu baax na ba tey. kuddi café waaw <laughs> dañuy jël kudd bu mag bi dafa wex dafa xat bu wexee continuité bi nga koy jël mën na la indil yeneen. loolu mooy dose yi nga xamante ni dinañ ko jël. kon professeur xam mm-hmm. mm-hmm. euh, mm-hmm. bu ko defee rek Pape comme ni ñu ko waxee woon rek ñu mettre la toujours en garde te ni bokkul ci garab yu lewet yi euh, garab yu wex yi la donc ki koy jël na koy na koy na ci bàyyi xel. ci dosage bi nga xamante ni joxe nañ ko. parce que tamit euh, bëgguñu rek joxe loo xam tamit. nit ki mën na ñëw rek jëm jël ngolamaar bi utiliser ko noo xam ne waxee wuñ ko woon noonu bu ci amee lor ñun ñooy nekk responsable donte moom mooy responsable sax mm, parce que moo ko defee nuñ ko waxee woon <laughs> waaw mais maanaam boo gisee ma ne ñooy mooy responsable sax mooy li waaw leer na waa kay mooy responsable yaay responsable waa kay jeex na mi ngi noonu kon boog très bien dimbali nga ma Pape te nit ñi dañoo xaw a sant jóobam léegi bu ko defee nag li ñuy wax ci yooyu eh, nañ koy respecté bu dañuy respecté bu ñu bu ñu xër ba mu ëpp bu ñu xër ba mu ëpp day xaw a doy waar daal bu ko defee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat rendez bu ci beneen vidéo bi ci Ugas Sen asalaamaaleykum wa